waaw mais gars yi Lamine Yamal mooyam actuellement la la la ci 19 bi moo ëppale luñ ko jaay non mais grâce la Guinée oh là là maa ngi ñëw ci biir salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk seen ab ak seen ab sant gars yi Lamine Yamal foofee ca FC Barcelone en ce moment ah mu ngi battre ay record moyen bi nga xam ne floqué numéro 19 démb leen ko annoncé mooy daanaka nee na fëx moo ëppale li ñu ko jaay ci mooy te moo gën a doon xale ci équipe bi et c'est normal nag ay compte abonné mooy Instagram moom dem na ba daanaka 15000 abonnés su ma jumul 7000 la jógee dem ba 15000 daf ko doublé mais yemaatuñu foofu mooy yaa ngi ne fa kenn toogatul xaar Lamine Yamal gën cee doon xale mais tamit lépp toj euro bi c'est normal. loolu da ciy joué mu ngi noonu maa ngi xaar ci commentaire mooy baax sax bu ngeen doon choisir ban mooy ngeen di jël actuellement ci côté Real mooy Mbappé yi moom nee na fëx mais côté Barça Lamine Yamal kon nag nar nañoo gisaat diwoo Lionel Messi Cristiano Ronaldo kee kee moo nekkoon idolam kee kee ko sang ñoom ñoo noo nar a gérer waat peut-être relève bi ci dix ans yi di ñëw wala quinze ans yi ngi ñëw ñu ngi xaar la suite nu mu di nar a demee ak Girassi la Guinée gars yi moom nag mën naa ni dem na rejoindre Atlético Madrid Girassi Stuttgart foofee la jógee la gone nga xam mu ngi am vingt-huit ans mu doon attaquant boo xam ne daaw def na lu dara jarul ñu ngi xaar la suite nan la mbir yi nar a demee bonne chance à lui yal na ko yàlla jàppale bu baax a baax a baax bu loolu weesoo gars yi ñooñee di bi am fii ci suba euh, le 19 moom lay am première match bi 15h diggante Athletic euh, République euh, ak kooku di Espoir de Mbao Espoir Foot de Mbao waaye AS Asfac Académie ak contre kooku di Académie Mbao Foot mu ngi noonu ñoom ñoo war a daje aussi 16h foofee ca stade Mbao mu ngi noone mu doon match yoo xam ne nii nar na neex nar na yëngu képp koo xam ne nag. yëg nga ko te dëkk alentour demal nga seetaan gone yu mën football ñoo nekk foofee jaa ngeen jëf yi képp koo ne abonné ko suñu chaîne YouTube duggal suñu bio TikTok la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan vidéo bu jeex ba beneen yoon ci nit vidéo gars namoon naa leen sas beeg yéen tamit namoon ngeen ma te nag dama leen indil invité bu spécial ci sama cinquième numéro bi ñu gën koo xamee ci Pa Assane Gueye lébu borom walaay ndeysaan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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ euh, la sele. si yow lay def batterie beeg lépp lépp ah, lépp balaa muy génn ci biir bi am plus ñu bindal ko facture. non mais gars nag loo ngeen xaar pour ñëw ci sam nag fii moom lépp yaa ngi na quoi ñu dem ci deuxième question bi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 am na ñu ma ko doon posé même question bi sauf que c'est intéressant nga posé ma ko yow parce que tout temps yaa ngi ciy yëngu affaire dafa nekk à partir de treize dañ ko liggéey liggéey bu exceptionnel boo xam ne